Moussa Diakhaté ñu ngi lay nuyu di la dalal ci mi FM. maa ngi leen di sant di leen gërëm yéen waa Rewmi FM di nuyu seen i auditeurs seen i internautes seen i seen ñëpp ñoo xam ne ñu ngi leen di suivre à travers le monde. nga yor kàddu bokk gis-gis tey jii euh, mu mel ni bokk gis-gis investir nañu ki nga xam ne mooy seen leader di Pape euh, Diop ngir nag mu jongante euh, ci chaise u jaraaf bu Ndakaaru wax wax ñu ci un lu leer. waaw li nga wax de du lépp foowul waaye baax nañu leeral. Mm-hmm. ñi investir ñi proposé président Pape Diop mooy jigéenu Ndakaar. Mm-hmm. ñoo ci réunion bu amoon démb ca permanence bu fédération bu Dakar bi nga xam ne moom moo ëmb fukki section yi ak juróom yi nekk ci de Dakar jigéen ñi jóg ni ñoom daal fi réew mi toll ak Ndakaar ni mu tëddee. Mm-hmm. dañoo bëggoon ñu proposé président Pape Diop pour mu nekk candidat. ci opposition bi ci élection wu jaraaf yi ngay wax ni joŋante yi xam na ni moo war a ñëw fi ak janvier. ñooñu nag euh, assemblée leen ko kon ci gàttal waa département de Dakar fédération bu bokk gis-gis bi ëmb fukki ak juróom-ñeent section yi moom mhm. ñoo proposé Pape Diop pour mu nekk seen candidat seen candidat ci élection jaraafu Ndakaaru yi nga xam ne ni moo war a ñëw ñu teg ci itam ne bu ñu sañoon mhm. buñ ciy dem opposition bi yëpp ñooy booloo moo xam ci Ndakaaru moo xam fépp ci Sénégal ndax danoo jàpp ni élection yi du élection wu maire rek waaye dafa mel ni moom mooy élection wu jéem nag sul noonu foog ñu commencé boole doole yi ci local yi léegi commencé koo jël su ko defee danañ am taxawaay bi ci mat ngir mën a am jàmmarloo bi war ngir gaañu bañ a forcé bu ñu àggee 2024. kon ngay wax procédure wala processus euh, investir euh, Pape euh, Diop Ndakaaru rek lay yem du ngeen ko soumettre yeneen entité yi nekk ci diwaan bi. non non xam nga comme élection locale moom. Mm-hmm. mbiru gox wax goxaat la. Mm-hmm. li tax ñu ni Pape Diop baax na dina mooy président wu parti bi. Mm-hmm. waaye dafa nekk aussi responsable. fii ci Dakar base am nekk fële Fass Gueule Tapée Colobane comme élection yi nag département la jëm par élégance nag suñ demee bureau politique ak secrétaire dana ngeen ko yëgal ni leen ñun daal président Pape Diop fi réew mi toll mhm. ak ni opposition bi mel jàpp nañ ni moom mën na doon ki mën a dajale ñëpp fii ci Ndakaaru mhm. ñu àndandoo jëli ji Ndakaaru téye mu des ci opposition bi su defee ñu mën a waajal ak euh, présidentielle donc mën naa yemandim rek Ndakaaru ñu waxtaanee ko waaye par élégance dinaa ko ñoom ñu xamee ko noonu ñuy déglu nag président Pape Diop mu lettuñu mbaa mu firiñu ci loolu nga xam ne nii waa département de Dakar yéeneen nañ ko ko yéeneel ko opposition bi yéeneel ko réew mi tam ndax nag lu waaye xamadi xamadi xam Pape Diop ak Ndakaaru euh, ngeen fas yéene ko euh, proposé lii di opposition bi euh, ndax jàpp ngeen ne li ni mel dina antu ñëpp dinañ ci ànd wala mu gën a tas lii di opposition bi waaw xam nga def lépp ñëpp ànd ci yàlla mi ko mën sa defu ko ndax gis nga am na ñoo xam ne gëm nañ yàlla am nañu gëmul yàlla mm-hmm. te bu ko neexoon nag ñëpp bokkandoo gëmandoo ko ñun jaam yi ak suñuy pexe suñuy yéene rek lañ am dañu mm-hmm. jàpp rek ni di ñu waxtaanee ak faami li ñu faami a dal suñu xel itam te mm-hmm. euh, mooy boole doole yi jàmmarloog ñu fi wala ku nekk demal boppam ñu boole ñun ñëpp rajo xeñu li fi amoon en deux mille dix neuf looluy dëgg itam ba tax na kon li andi mooy waxtaan ndax ay na yëwén bu fekkee ni bëgg bi moo bari day baax ñu toog waxtaanee ko xool ci ja ci ñu jàpp ni mën naa dajale ñëpp ñu àndandoo wuut ci àndum nawle bu boobaa mu door am lii rek a tax ñu xalaat ko bëgg yomb na ndax ku nekk am na loo bëgg ku nekk am na noo ko ñu bokkul fu ñu jógee ñu bokkul lu ñuy doxee suñu waree daje am fu ñu jëm day baax ku nekk am loo bari ci làcc gi su ko defee ñu dajale ko muy njëriñu askan ñu jëm cee jublu lii rek képp donc kese moo ñu ci dugal. yéen ngeen proposé euh, kii di Pape Diop bu bokk gis-gis Barthélémy Dias samp ndëndam moom it euh, pour Ndakaaru euh, te mën nañoo ñoo wax ne mbir yi jeexagul ndax fii léegi ñuy àgg euh, ca wot wi euh, dinañ déggaat yeneen tur euh, tey ndax guerre des ambitions yooyu le du gën a xaajale opposition bi. waa dama ni xam nga loolu mooy charme démocratie baal ma charme démocratie mooy ku bëgg waxal ni bëgg nga ma ci jaar di nuyu suma xarit suma doomu ndey Barthélémy Diaz mm. di jàmbaari fakk tëdd fii ci Ndakaaru itam di def liggéey bu mucc ay au profit de l'opposition mm-hmm. waaye dafa am xam ne buñ fa àggee dootul wala yëfi yow yëfi mbooloo la dootul nekkati mbiru camp wala mbiru bële camp day nekk mbiru opposition sañ nañ nag ba fii ñuy àgg <clears throat> ku nekk ni man bëgg na ku bëgg ñu jël ko waaye après ñi bëgg ñëpp ñu dajale leen xool ki nga xam ne ni moo mën a dajale ñëpp su wootee ñëpp ànd ceeg moom moom itam mu tëddee njaaxaanee ñu àndi àndi nawle moo tax c'est bien que chacun décline ku nekk wax li mu bëgg waaye gëm naa ne bu ñu ca àggee ca war a tànn ku nekk nag day fàtt jëmmam ñu xool li ñor Ndakaaru li nga xam ne ni mooy njëriñ opposition bi li ne ni njëriñu euh, réew mi ñu jëfee ko kon jàpp naa ne bu ci àggee suñu deful la ñu daloon ca élection législative bi passé ku nekk bëgg demal boppam ba fi ñu mujjee mooy gis na ko li ñu am ay pepp la les pepp ak pepp jàpp naa ne nag bii pas ku nekk dina fàtte boppam ñu jiital Ndakaaru jiital intérêt Sénégal jiital intérêt opposition bi bu boobaa dinañ mën a am ndam lu mucc ay ci Sénégal waaye mu bañ yem rek ci Ndakaaru fépp ci Sénégal ñëpp doxante loxo ñu ànd def ay liste yu mucc ayib su fekkee ni mën naa moo ñu mën am nañu yaakaar lool ñu danañ gañe su ñu àndul nag suñu yaakaar dana néew lool pour a gañe kon yow am nga yaakaar ni intérêt général euh, mën naa tax ba ñu yaakaar wala ñu jàpp ne opposition bi mën naa am candidature unique waaw loolu moom yaakaar boobu moom dañ si d'ailleurs loolay loolay loolay waree fu jullit waaye ñun tam dañ ne ku ndobin rey sa maam foo gisee lu ñuul daw mm-hmm. defe naa ne ñi nekk force yi ëpp doole ci opposition bi nekk fii ci Ndakaaru suñu seetloo bu ñu xamoon àndoon ci législative bi ku ne ci ñun la nga am mun naa gën a yokk te itam nag suñu góor gu mag bi Ablaye Wade digaloon nañu ko jëfeewuñu ko waaye jàpp naa ni bii temps ñun ñëpp ku nekk gis nga conséquences yi yi nga xam ne ni moo fi am suñu boolee suñuy doole am doole suñ ko boolewul ku jàpp ni yow kese mën nga am doole nax nga sa bopp moo tax yaakaar gi dëgg la ndax yàggul deux mille dix bi ñu jógee ci législative yi ñàkk ko moo ñu teg li fi xew yëpp suñu booloo woon ko ko ma jàpp rek ni nit ñi danañ fàtte seen i seen i intérêt personne ñu jiitale intérêt mbooloo ñu gën ci gaa yi ñu tànn ko ñu ànd ànd nawle ngir mën a am victoire bu mucc ayib. Moussa Diakhaté ndes euh, des ci Ndakaaru wax ci li nga xam ne euh, actualité la bu yàggul dégg nañu euh, le bu ñu wax ne ñoom bu ñu sañoon seen i doom daal di yor lii di mairie bu Ndakaaru ndax ndakaar dafa am ñu ko moom noo jàngatee boobu le proposition waaw mani mani wax ji sax bu yemoon ci biir néeg rek wala wax ko ñenn ñi mën naa am du jur tuure gi mu jur ndax su yàlla defee ñoom ñu njabootee ñëpp ci lébu gi am na ñoo xam ne ànduñu ak lu ñu wax te yëg naa ko wax nañ ma ko ndax itam euh, genn golo gudd na waaye loo ci laal borom yëg ko mm-hmm. samay doom seen i deret jaxasoo naag tereetu lébu gi ndax sama soxna yaayam lébu la donc ma jàpp ni moom it lébu la ak keneen ak keneen ak keneen ñoom gisewuñu nii kilifa yooyu waxee ma jàpp rek ni xëy na erreur de communication la ndax euh, alaaji Moussa Samb imam sama kàll dama yaakaar ne xëy na daa añuloon grand sëriñ itam jàpp naa ni xëy moom mu far politiquement tax itam loolu kenn du ko wettable li mu nekk ci camp président Macky Sall xëy na moo tax mu tànnee tànn ñu ànd ak Macky Sall waaye lébu gi bari ñu nekkul ci pouvoir bi ba tax na kàddu goo xam ne dañ koy dañ koy wax mu mën a féewale askan mhm. wala concert yi war nañ ko muytu rawatina su jógee ci kilifa yoo xam ne bu daay amee ñoo war a jóg fay ko ma jàpp rek ni erreur de communication la yu ñu war a muytu la moo xam ci gi moo xam ci couleur yi moo xam ci séeréer si moo xam ci wolof bi fépp kàddu jógul nattukaay bi doon mbiru xeet wala waaso lu ñu war a xeex war a ñaawlu la lu ñu war a muytu la ndax réew mi nag dafa laaj bal dafa laaj juboo dafa laaj booloo ñoom dañ leen ci xaar en tant que imam en tant que grand sëriñ ndax kat ñoom ñoo nañu sax lébu gi ci xam ci yaatoyam te ñëpp xam ko dem nañ ba naan dañuy créé treizième penc pour jagleel ko ñi nga xam ne nii dañoo fekk baax nu ci ndakaaru wala baax fekk leen fi ndax nekk bi ñu nekk ak dëkkin ba tax na jàpp naa ne foo yëgatee kàddu buy boddi su boobaa nga yàq sa sa sa sa wëy di nga yàq sa taxawaay te mën naa tasaare sa njaboot donc lu matu moytu la ñu leen ciy invité bu ëllëgee yu mel noonu ñoom suñu ay kilifa lañ munuñ am lu leen ëpp waaye ñu moytu di waxee noonu ndax mën naa féewale njaboot gi. waxtaanee euh, tournée économique bu njiitu réew mi doxantu nemmeeku ci bët gànnaaru euh, réew mi euh, nan nga ko jàngatee. waaw njàngat li moom defe naa ni nee na damay wax ni président jóg di wër réew mi. di xool liggéey yu mu def wala yu mu defoon wala yu muy waaj def dara aayu ci li ci aay kay mooy mobilisation yi ñu gis te moom président mu waxoon ni ci làmmiñu boppam muytu leen ci daje yu ñàkk solo yi ndax mbas maa ngi ci jógewu li mu wax nag ak li muy jëfee dafa waroo looloo tax itam ñaare su waxee nit ñi duñ ko fu laal lool muy lu lu regrettable ndax bu ñu sañoon itam bu nit ñi di jóg ñëppay jógandoo di sàccandoo di dóorandoo surtout bu dee intérêt wu Sénégal la waaye bu fekkee ne la ñuy wax day waroog la ñuy jëf dina jafe loolu nit ñi toppandoo leen ci lañ bëgg a lool looy lay waral léeg-léeg ñu waxoo ñaare nit ñi duñu addu wala bu ñuy addu duñu addoo ñoom ni ñu ko bëggee li xew rek itam nag politique la ndax yéen xam ngeen ni barki Dembo Ndiaye am na lu xew ci réew mi ñu koy naqaru lool na hmm. muy violence ñu ko gis toj yeeg yàq yeeg yooyu yaakaar naa ni day gàkkal deru Sénégal te képp kuy doomu Sénégal amoo waroo cee am fierté waroo cee ànd waaye bu fekkee nii la bëgg dalalaatee xelam ak ay ñoñam maanaam fu mu dem mi dugal ay nit ndakaaru yeb leen di leen fay juróomi junni waxuma ko de ci rajo bi laa dégg ñu koy wax wóoruma itam ni am na waaye dama ni bu dee loolu la mu ngi nax boppam moom itam daa mel ni goney Sénégal tontu nañ ko ndax ca keroog ba muy def discours dani moom du gis lu xonq waaye waxuma ni gisul lu xonq waaye mu ngi dund lu xonq il ne voit pas le rouge il est en vivre le rouge loolu nag li koy wanal mooy askan wi kontaan nañu au lieu de wut ay nervi ñu leen di door a ko déglu leen ba fexe faj seen soxla yaakaar naa ni solution bi ci ëpp solo te di jaay doole te di buuxante ndax nguur bu dul nguuru yàlla billaahi day jeex ñu gis ci réseaux sociaux yi ak it ci ay taskatu xibaar ñi nga xam ne ñoo jot a euh, ànd ak euh, ñoom ci tournée bi fësal muy ay nervi yi nga xam ne depuis quelque temps coow laa ngi gën a bëri ñu ngi leen di gis euh, tey jii nan nga jàngatee phénomène boobu. waaw phénomène boobu phénomène la bu ñuy ñaawlu bu ñuy ñaaw surtout su ci ñi nga xam ni ñoom ñoo waroon ko xeex ko suñ koy def day mooy permettre ñeneen itam wuti seen i nerve di payo waaye violence bi ni mu mel Sénégal war naa interpeller kenn ku nekk ci ñun fes na lool ci arène politique waaye mu ngi ci ba ca classe école ba mu ngi ci ba ca koñ ba mu ngi ci ba ca kër ya loolu nag day interpeller ñëpp sociologue yeeg sénégalais yeeg même waxin wi amul teggin même waxin amatul yar amatul worma kuy dugg ci classe fekk sa mën koo xoj fala la violence mën a yem. Hmm. waaye nag li koy waral mooy ñi nga xam ne ñoo waroon doon royukaay waroon jëfe ñu leen di roy su fekkee ni ñoom dañuy wujjante ci ku ëpp garde corps ku ëpp ay bras ay ay ku jóg ma dóor la fu may dem génne ay nit ay nër bi. gros bras surtout. dafay yàggu. Hmm. manifestation yi amee si ñu artu kenn jogul lii andi jéeya réew mu tàkk injustice bu nit ñi di bàyyi di law jaay doole bu kenn waxul moom moo koy andi ñuy interpellé waat encore une fois le président de la république ni ko nervi yooyu accompagner ay élément am ci biir duñuy taaral démocratie du ñu koy màggal moom chef de l'état ndax kat ñoom ñoo war a xeex li ni mel suñ ko jëfee dana pousse ñeneen itam ñu révolté wu nekk ci frustration jàmmaarloog ñoom te day jur violence te fu violence am jàmm du fa am violence am développement du fa am te su boobaa Sénégal rek donc kott moo ñu nekk ci sixième mois li des ngir at mi jeex euh, juróom benn weer la tamit donc li ci des euh, ngir ñu dem ci local yi bëriwul tey ji euh, ba tey déggaguñu fenn fu ñu wax révision fichier bi wala sax list yi noo ko jàngate ñi ma ko jàngatee mooy jaaxle ni ñëpp waaye man yàlla daf ma bindee nag ñaare du ma wax lu ma xamul wala du ma wax lu ma wóorul yàlla def na nekkuma ca commission ba donte Abdou Salam Bass directeur des élections de Bokk Gis Gis mu nga fa moom moom moo ñuy jox ay information mhm. waaye ba fii ñuy demee kenn xamagul lan lañ tënk lan lañ jàpp lan la ñuy dogal ak lan la ñuy bàyyi. Mhm. ñu ngi gis daal mu ngi seppi di rocc ay ndànk-ndànk di def ay eh, départementalisation par di toj fii par fii mu mel ni daal dafa nekk ci yoonu defaru ndax jekkoogul ngir bu jekkoo pour mën a dal ci kaw ni ñi lenn rek lay wax li ñu repousser élection yëpp suñu génnee ci dialogue bi te amuñu un consensus fort ñu dem élection te kenn bañ a andi ngañ su boobaa perte nañ tardel nañ Sénégal yi. tardeel réew mi te boobaa itam nañ ko nangu assumer ni pouvoir bi amee responsabilité noonu la opposition bi toogeek ci dialogue bi di amee responsabilité ndax itam nag yàgg na lool ñaar ba jëb bu ngi dugg ñetti at ñu pousse ay élection yu waroon am c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal. laajte ñu la ko sànq ana euh, seen leader di Pape Diop. waaw président Pape Diop mu ngi fi. nga koo a dégg. waaw xam nga bu pënd bu bu wax bare. Hmm. waxandoo bu mat a moytu la su dee bu nga kilifa nga. su fekkee yi ñu leen di dégg léeg-léeg ci ay actualité yi nga xam ne ku nekk ak sa skill hmm. président Pape Diop yàlla moo ko nattoo du nitu wax nitu jëf la. dans la vie de tous les jours. c' est quelqu'un qui parle peu et qui agit beaucoup. da nga koy xool ca turo ca sëriñam ba sëñ Abdou Khadre. Hmm. moom la jël melokaan. président Pape Diop moom mu fekkee nii fal wax rek mooy tax a falu. jàpp naa ne du gaaw a falu. waaye bu dee jëf bu dee yiw bu dee dox jàmm bu dox mbokk. ci lay dox réew mi nag fan li nga dégg taxarante saagante jiiñante dóorante ku ciy xaar président Pape Diop na ni doo gaawoo ko dégg ndax doxul ci bës bokk gis ci bës su waxu jotee danañ war a wax lañ war a wax danañ ko war a wax ak teggin ak worma ndax loolu lañ jëm ni valeur moo war a nekk laytaayu discours politique parce que sinon ñu jëm du baax ci réew mi. ñu lay jaajëfal bu baax a baax Moussa Diakhaté. di leen sant di leen gërëm bu baax a baax ci invitation bi.